asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission euh, sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak euh, Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle euh, dalal Ahmet Diallo nekk ingénieur nekk leader au mouvement politico citoyen Ngeexoox bu bees nekk tamit secrétaire général bu fédération des organisations républicaines euh, sénégalaises ñu fas yéene waxtaane retour des cerveaux euh, d'Afrique maanaam ñi nga xamante ni dañuy bàyyeekoo Afrique wala Sénégal dem jàngi Europe wante bu ñu noppee ñëwaat fii euh, ci réew mi dafay nekk lu jafe échec bi nga xamante am na ci wàllum politique de l'emploi des jeunes fii ci <coughs> Sénégal émigration clandestine bi report élection euh, locales yi euh, daañu ko waxtaanee ak tamit importance bi nga xamante ni collectivité euh, locales yi am nañ ko ngir mën a suqali gox yi ab maire naka la mën a taxawee ngir développer commune am daañu waxtaanee wàllum entrepreneuriat ak politique bi nga xamante ni état wu Sénégal teg na ko wàllum DER ak yeneen projet ngir jàppale ndaw yi Covid 19 vaccin bi ak tamit problème bañu euh, troisième mandat file ci euh, réewu Sénégal ak yeneen i ponk yu soxal actualité bi euh, su si xajee daañu waxtaan ci livre bi nga xamante ni kile di amet Diallo génne na ko récemment la l'Afrique au sommet du monde ñu lay nuyu di la dalal jàmm Ahmed Diallo. Ndeye maa ngi lay nuyu di la remercier di nuyu auditeurs yëpp di fas yéene am ak ñoom waxtaan bu am solo. Mhm. ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité. voilà tey jii nga teg ab euh, mouvement tuddee ko euh, mouvement euh, ngeexoox bu bees lu ni mel exactement lan lañ ci mën a dégg lan moo ko wundu exactement waaw comme nuñ ko tàmm di waxee expliquer ko ñëpp xoox bu bees gis-gis la avant tout mooy ambition la vision la maanaam politique soo siy dugg day tegu si ay idée tegu si vision vision boobu nag mooy Euh, mooy yóbbaale lépp lu tegu ci gannaaw. Mhm. ngexoox bu bees maanaam ñun waa campement ngexoox doomu ngexoox yi juddoo ngexoox màggee fa yaroo fa. Mhm. dañu ne il faut ñuy fàttali suñu bopp ne dañu am droit di dund fu baax fu yees. fu mhm. sell fu bees. parce que dañu nekk dëkk boo xamante Sénégal à chaque fois dañuy gis ne euh, lu bëri. dañ koy gis du jaar yoon mais dañuy dem ba miis ko. Mhm. jàpp ne dafa nekk yoon. Mhm. gis ay maire yoo xamante ne nu leen neex la ñuy def suufu dëkk bi. gis ay maire yoo xamante ne seen gestion baaxul gis dëkk bi mbalit gi kenn toppatoowu ko moom ay problème yu bëri mais nit ñi dañuy toog ñu si bëri jàpp ne daal dafa mel ni daa mel ni lu normal. Mhm. ñu jàpp ne nag suñu ne ngexoor bu bees soo tourné xool sa autour de toi dara beesu fi nga ne ah man kat war naa xeex pour liy bees mhm. soo xeexee nag ba mu bees ba mu yees ba mu sell nga jox say rakk mhm. wala say doom ñoom aussi ñuy beesal bu ko defee a chaque fois les gens vont se rappeler qu'ils ont ce droit que dans les autres pays du monde où les gens vivent bien dans de bonnes condition ils on ce même droit parce que ñun ñëpp ay nit lañ ay doomu aadama lañ mhm. dignité humaine euh, nu ko tubaab bi mën a amee wala keneen amee ko yoo xamante Euh, organisé wu nañ. Mhm. Sénégal yëpp ñoo ko war a amee. donc loolu noonu mooy vision wu. Ngeexoox bu bees donc muy politique mhm. donc ñu ngi ko teg deux mille dix neuf donc ça fait maintenant deux ans d' donc vision politique ak développement la parce que quand on est venu. Mhm. Euh, di mettre en place Ngeexoox bu bees euh, mënoon nañ ñu. wax ñu bëri dañu daan naan yéen comme que yaa ngeen si acte social yi di si def lu bëri. est-ce que doo yem si loolu rek bañ a def politique. ñoo leen déedéet ñaar yëpp la ñuy def. dañuy def. politique def euh, développement moo tax nga xaw bés particularité mooy mouvement euh, ku ñu ko waxee socio politique ngeen daal ay politiciens lañ politicien kenn du ko bañ maintenant rek non hmm. politicien mais j'assume tout ce que je fais et hmm. quand on est venu les gens disaient que ñii seen acte social yëpp politique moo nekk si gannaaw mooy leen déedéet politique nekkul si gannaaw politique moo nekk si kanam parce que je vous le dis bi moo ñu intéressé on va Euh, participer ci élection yi pour gagner ko. Mm. donc du ñu làqatu et on assume tout le temps. lan nga def ci ngeexoox. ah lu ma def ci ngeexoox bëri na ñu nekk fi di ko lim mais lu ëpp solo. Mm-hmm. Euh, mooy lu gën a am solo ci nit ñi. mooy santé wér-gu-yaram. Mhm. santé bérébu santé bi defaraat bu ñu ko defaraat ku dem ngeexoor di nga si teg sa bët. dañ ko réfectionné dañ ko réfectionné. si sa xaalis si sama alalu bopp. si say koppar si ko defaree tamit après foo jëlee koppar waaw loolu noonu nañ si ñëw sama sama ñàkk rek lépp lu ma am. def ko mhm. ngeexoor mhm. amul lenn lu jugee sax. lu luñ ma jox lépp maa ko liggéey yéen ko waa Ngexoox jox ko waa Ngexoox soo jugee ci santé bi nga dem ci éducation xam nga école day ibbi maire bu nekk si dëkk bi moom sax du xam problème mu école yi. Mhm. ñun ñooy dem si école yi xool ko yónni suñuy ndaw ba xam ne école yi problème yii la ñu am problème mu table banc problème yi dul jeex problème fourniture. Mhm. ñu jël euh, plus de ay deux cent élèves jox leen ñoom ñëpp fourniture defaraat table banc yi si école yi loolu noonu yëpp parce que on pouvait aller faire une visite sur place remarquer les problème ñëw expliquer ko population yi nee leen maire bi liggéeyul. Mhm. mais du ñu wax kese dañuy jëf suñu jëfee nag ñu ne ko nag école bi dëkk bi. école yi bëri nañ mais ñun def nañ ko ci temps de école yow maire bi continuer comme que yëgoo woon lu xew te ñun liggéey nañ ba nga xam lii xew na ci dëkk bi ñu wan ko exemple donc euh, discours Ngexox Bees ak euh, doxalin Ngexox Bees mooy. Mhm. jëf xam nga lu may wax souvent euh, ñun avant de avant de des opposants on est des proposants et des proposants on est des gens qui qui font des choses. Mhm. donc dañuy jëf di joxe xalaat. ba pare nag doog a opposé wu fermement parce que l'opposition aussi c'est nécessaire parce que nit ñi dañuy joxalee dëkk bi noo xamante ne teguñu ko si yoon. mais yow lan ngay reprocher le maire de ngay non kooku gis nga kooku Diallo yow loo koy reprocher. gis nga kooku. Mhm. Euh, wax dëgg fa yàlla def naa ay émissions yu bëri di ko reprocher bu yàggee sax day am lu muy ndóol kooku lu ñu koy reprocher Sénégal yëpp xam nañ ko. Mhm. donc bëgguma ci sax. di ñëwaat tout le temps mais man maa la ko laaj sama émission. waaw xam nga yow. waaw waaw bi mun nañ ci ñëwaat mais xam nga euh, sooy tànn nit mu lay jiital. da nga koy tànn si yenn critères yu simple est-ce que am na xam-xamu lu luñ ko dénk. Mhm. loolu la question est non pour meeru Ngexo après nañ ñëw si preuve. amul xam-xam beneen amul xam beneen bi mooy. yow yaa am xam-xam ce que non xaaral ñu ñëw si loolu beneen bi mooy. Mhm. est-ce que mhm. luñ koy. Euh, euh, nu ngi ko dénk mu ngi koy doxalee su lu sell leer su lu yees am na transparence boobu mooy non donc ñaari critères yooyu soo ko boolee moom amu ko donc su ñëwee si premier critère bi. amul xam amul xam-xam xam nga xam-xam. nekkul rek. Euh, est-ce tamit nekkul da ngay wax loolu. parce que da nga bëgg place su le maire de Ngexoor. waaw non yoo xam naa soo dëkkoon Ngexoor doo wax loolu. Hmm. parce que ñu dëkk Ngexoor. Hmm. kenn si waa Ngexoor xam nga xam-xam nuñ koy nattee. Hmm. Euh, mun nga natt nit ki si jàngam. donc soo ko nattee foofu foofu moom éliminer nañ ko nga natt ko si ñuy natt si liggéeyam soo ko nattee foofu éliminer nañ ko nga natt ko si nit yi lu ñuy wax soo ko nattee foofu éliminer nañ ko si jàngam. loolu noonu sax bëgguma di ko wax parce que day mel ni daa am lu muy ndóol dañuy xeeb ñu jàngul yi mais koo xamante ne. passé wu école mun munuñu munuñu ñu wax ne am nga xam-xam bu dee waroo àndoog ak ñu am xam-xam. Mhm. ba pare ànd ak liggéey ak ñoom donc moom amul xam-xam si wàllum jàng ja du si arab am nga fekkoon arab sax ñu ne waaw du si arab mhm. du si mhm. bi ñu ko wër ñëpp. yow nañ la mere. duñ la voté ma ne ma ne ma ne xam nga ñu jàngul ñi. mun am na yeneen mais mais parfois di nga gis. am nañ yeneen qualité yu bëri dégg dëkk bi fii ñu jàngul ñoo ko yor mais moom yemul si loolu. xam nga dama ne ay critères yu bëri la. Mhm. xam nga bu mu ñëwee. waaw nga waaw moo tax man may ma kon ne. xam nga moom bu mu ñëwee. Mhm. nee na waa nga xoo dañ ko wóolu malgré que xamal nañ ko loolu parce que dañ jàppoon ne am na lu ëpp doole jàng mooy jubal mooy transparence xam nga mooy jàmbaarte mooy bëgg dëkk bi mais loolu noonu jàng benn élément dong la si dafa nekk critère critère boobu noonu. Mhm. suñ ko évaluer ba pare dañuy éliminer teg na ko xam-xam bi moom amu ko. waaw loolu laa wax ma ne mënoon na a am xam-xam bi nag a bañ a soxi mu gérer euh, malheureusement nag yore yoon bu rafet ngee xoox malheureusement waaw ah, parce que gis am na ñu fi jàng te liggéeyuñ dara malheureusement ah. malheureusement moom nag mhm. c'est pire am na ñoo xamante ne par exemple Sénégal soo xool entreprise yu mag ñi ñoo xamante ne euh, si jàng nasaraan bi sori wuñ si ñoo ko yor ñoom dañ leen si féliciter di leen encourager di leen di leen war a jàppale mhm. parce que loolu noonu mooy Sénégal économie économie Sénégal mhm. informel moo ko yor ñoo xamante ne ay jàmbaarte leen parce que ñu jàng ñu souvent seen problème dañuy xaar salarié ñu ay entrepreneur exactement mais donc moom. Mhm. loolu noonu critère la ñu ne est-ce que diine alxuraan soo demee war a euh, diine euh, l'islam soo demee si alxuraan ku war a jiite critère bu njëkk mooy ku ëpp xam-xam si yéen du ku ëpp juddu du ku ëpp pexe du ku ëpp ay lijjanti du ku ëpp famille. Mhm. mooy ku gën a mbokkal téere bi ku si gën a jàng. waaw yow nga disqualifié côté boobu donc boobu moom. audio boobu nekkul man soo demee laajte ngeexoo nga leen est-ce que ku leen jiite am na xam-xam dañ leen ne amul xam-xam loolu moom mhm. nekkul ne dañ ko si xeeb mais mooy réalité maintenant beneen aspect bi mooy transparence mm. balaa liggéey bi ñëw transparence transparence amu fa parce que lu koy firndeel depuis décembre 2020 bind naa lu ko ma ko yoon mayee code général des collectivité territoriales chaque citoyen am droit dam laajte les documents de gestion du maire loo xamante ne dañ ko waroon affiché jox ko citoyen ñu koy nëbb ma laaj leen ko cinq mois ñu bañ ko joxe. Mhm. ma dem sur place fekk leen fa pour ñu jox ma ko ñu daw dem seen yoon mu yónnee fa huissier huissier bi depuis une semaine mu ngi leen di wër si dëkk bi mu ngi leen gis pour jox leen kayit yi pour ñu. jox ñu loo xamante ne. Mhm. citoyen yi ñoo ko moom am nga koo xamante ne lu ngay doxalee. loo xamante ne nee nañ ngeexoox sax pour ñu am ndox c'est un problème. non mais problème ngeexoox loolu nañ ñëw si affaire mooy incompétence bi. Mhm. xam nga wax nañ jàng bi. wax nañ jub gi transparence bi loolu noonu yëpp nañ ko si maintenant. suñu ñëwee suñu suñu ñëwee si affaire transparence mooy kayit yi document de gestion loo xamante ne loi bi moo la ne dekkee affiché nit di ko xool nga koy nëbb ba nit di la si topp ba la yónnee huissier huissier di la seet si dëkk bi mun la gis xam nga loolu lu doy waar la maintenant éliminer nañ ko ci ñaar yow lu tax tamit nga koy harceler parce que da nga bëgg place am xam nga xam nga gis nga man même su ma bëggul woon place am ah, population yi da am ku war a taxaw di leen xeexal pour ñu ne dañ la dénk depuis 2014 ba léegi jël nga fi ay arrêté pour ñun voté nga fi ay budget pour ñun mhm. def nga fi ay compte administratif pour ñun ah jël nga fi ay arrêté pour ñun léegi yow loolu lépp nga jëloon pour ñun léegi ñun dañaa bëgg xool lu ñu la dénkoon noo ko doxalee nga bañ donc moom bu dul man population bi yëpp dañ si am droit donc loolu dañ ko siy topp ba mu sës parce que da war a joxe maintenant suñ ko jotee suñ ko jotee ñu wax ni ah lii lañ gis baax na baaxul mais mu ngi koy nëbb donc comme looy nëbb nag mun nañ joxtu ne jub amu ci beneen bi mooy compétence bi. Mm-hmm. parce que mën ñu la dénk dëkk euh, sa compétence yu bëri soo jëmee si wàllu mbalit gi nga bu mu ñëwee 2014 ba léegi benn euh, genre euh, tracteur boo xamante ne ndaw na ndaw boo xamante ne su duggee si benn koñ balaa koñ bi di jeex sax mbalit gi fees. Mm-hmm. moo fa nekk. Mm-hmm. gestion dëkk bi am problème mu mbalit bu doy waar lijjanti ko boobu ba léegi changé woo ko gestion bi nu ñu ko yoree changé wuñ ko nekk. kër xamul ku mu dénk mbalit bi yokkul oto saa soo ñëwee kaas nag ñu jéem a naxante dem ñëw indi ay affaire euh, dem àbbu oto deux jours oto bi demaat yoonam. Mhm. mais loolu noonu mooy wan ne il ne gère pas cet aspect de l' assainissement mu nekk compétence am. Mhm. mais géré wu ko formé wu si dara soo demee si euh, wàllu suuf bi kayit yi. Mhm. mais foofu moo gën a doy wax da ngay dem ngexoox nga jënd sa kër. Euh, war am loo xamante ne yeneen commune yi une semaine deux semaines. ñu defal la ko ñu defal la ko. Mhm. nga xool un an deux ans ngay am doo ko jot. doo ko jot nit yi di si sonn ku jënd këyit kër nga yërëm naa la di nga toog deux ans un an doo jot dara xam nga loolu aussi incompétence la parce que mu mu amul leneen lu ko expliquer. incompétence ak truand parce que lu koy expliquer ñun xam nañ ko. truand ah fa nga expliquer foofu xam lu koy expliquer. Mhm. maanaam da ñëw xaalis bi soo ñëwee joxe deux cent mille pour mutation normalement waroo leen ko jox ñoom. da nga waroon dem trésor mhm. jox leen ñu jox la quitus fiscal nga ñëw jox leen ko ñoom ñu defal la sa kayit mais ñoom dañuy jël deux cent en espèce dugal seen poche fajee ko seen soxla comme xaalis bi duñ ko déposé ji trésor mhm. ñu taadal sa kayit ba amaat xaalis bu dootee yow li ngay wax na ci moom fan di ñëw ah? ma ne non li ngay wax ma ne nday kumba nay kumba nday kumba xam nga mm. magum jëmm du toog fii di wax loo xamante ne amu si preuve mm. lépp lu ma la wax mm. am nañ si preuve yu leer nañ te dinañ ñëw génne ko wax naa leen fii nii euh, récemment que exactement lotissement clandestin yu mu def si dëkk bi xam nañ ko exactement quota bu si mairie bi am mooy terrain yu mairie di am si chaque lotissement mhm. loo xamante ne amul sax droit daf ko xam nañ ko terrain yooyu nu mu ko doxalee xam nañ ko montant bi xam nañ ko mais nañ si ñëw loolu noonu yëpp lu ñu bëgg déjà mooy nañu jox kayit de gestion yi ba pare bu ko defee ñu wax ko exactement moom lu mu si dëkk bi léegi maintenant comme ñu ngi dajale ñu ngi dajale lu ñu yor mhm. te document de gestion yi moom bañ su génnee loolu noonu yëpp nañu toog ak presse bi yëpp boobu nañu la invité sax nga ñëw xool ñu wax exactement mhm. yéen waa Ngexox alal gii waxoon dem si santé bi waxoon dem si mbalit bi waxoon dem fii ah gis ñu ko xam nañ de génn na xam nañ de gars yi joxe nañ ko mais xamuñu fu mu jaar mais loolu nañ si ñëw incha allah mhm. maintenant dañuy def lu ñu bëgg mu am rigueur am sérieux moo tax ñu am méthode di yónnee huissier di jaar si yoon di bind lettre di xaar loolu ñu may yëpp étape par étape lañ koy def te incha allah dinañ si dinañ si egg donc incompétence bi aussi suñ si yóbbu suñ si ko ne domaine yëpp ngay lim ndox bi mais waa Ngexoox da nga leen yërëm les gens dépensent deux mille à cinq mille chaque jour pour am ndox pour am ndox parce que loolu incompétence u maire bi la ak jàppale ñoo xamante ne euh, dañ leen dénk ndox bi ñu doxalee ko lu dul yoon waa ASIFOR association des usagers du forage ñu ne la yow ndox bi yaa koy yor waa Ngexoox chaque mois suñu fayee minimum gars yi nañ am ay millions une vingtaine de millions une trentaine de millions de factures nga wax ci fay say salariés wax ci fay say techniciens wax ci fay courant wax ci jënd ay groupe et puis wax am réserve pour renforcer capacité forage bi. Mhm. boobu ba léegi dafoo ci dara nga bàyyi ko ba structure bi am ay problème mu courant mootuñu fay courant gars yi di couper forage bi nit di am problème mu ndox. maintenant loolu comme que dafoo ci dara comme que amoon na benn projet ma forage forage maintenant xaalis bi waa Ngexoor di fay ay facture nga koy utiliser à des fins politiques moo tax Azifor bi bu waa o jege see rek ñun ñu jóg ak ñu ñuy wax saytu Ngexoor benn mm. comité bu ñu mettre en place pour ne dañuy auditer Azifor balaa ñuy def passation bi. Mm-hmm. ñoom ñu gaawantu bañ audit bi am ñu tëj Azifor bi ferme bureau yi jël ordinateur yi teg fole te Sen'Eau jëlagul ndox gi. donc Ngexoor actuellement ndox bi kenn géré wu ko. kenn géré ko kenn géré wu ko donc facture électrique population bi ndox. Mm-hmm. depuis plus de cinq mois. donc facture courant bi mu ngi di yokk di mm. yokk di yokku ba jege ay cent millions donc loolu ku est-ce am xam-xam. dina doxalee noonu. ku am compétence doxalee noonu au moins nga gérer ba waa seen au jël ba passation bi jaar yoon mais sa incompétence sa précipitation ak sa yàkkamti nëbb say njublang moo tax nga gaawantu jël arrêté tëj kii bi nga bëgg ibi préfet noo amoo compétence waat ko et puis nga indil problème dëkk bi donc ñetti fànn yëpp. gis nañ ne il est disqualifié non kooku moom wax dëgg fa yàlla <laughs> mais léegi ame Ahmed Diallo dañ lay laaj yow euh, fan ngay jëlee ay koppax pour mën a euh, financer say activité politique yi nga xamante ni actuellement yaa ngi koy amal foo jëlee koppar. waaw xam nga koppar moom. tubaab yee la jox xaalis wala. no koppar moom sa liggéey rek nga ko mën a amee. nga ah koppar ak aku la may. Mm-hmm. liggéey mooy soit nga nekk salarié ñu fay la salaire nga am si dara delloo ko nit ñi parce que xalaatoo sa bopp kese soit. na am entreprise mooy sama cas Turing Consulting. Mhm. di si liggéey aussi am ay entreprise Sénégal di si liggéey lu ma si yàlla may xéewal ma xam ne lii nekkul pour man kese mënoon naa ko yemale sama bopp. Mhm. Euh, mais ma jël ma jël lu si ëpp di ko dugalaat si askan bi parce que loolu laa gëm. parce que loolu noonu mooy sama passion te loolu laa jàpp ne mooy amal njëriñ. maanaam li ngay liggéey li ngay gagné moom ngay jëlaat def ko ci say mm. activité def ko sama activité politique pour pour dimbali askan bi pas activité politique mais principalement activité sociale yi. Mm-hmm. politique bi. c'est autre chose c'est le discours nga koy def parce que da nga am ay ambition politique il faut le dire. mun na nekk mu nga wax loolu parce que on fait les deux. Mm-hmm. xam nañ ne wax dëgg fa yàlla man. je am na li nga ciy séntu yàlla tax wax dëgg fa yàlla yàlla rek moo tax ñuy def wax dëgg fa yàlla maintenant. Mhm. maintenant mhm. parce que euh, daa am loo xamante ne action sociale la da nga koy def parce que da ngay joxe exemple comme lu ñu wax ci taawul ban yi teen yu ñuy def ngexoox parce que ndox manqué na nit am nañ problème ñuy gasaat ay teen di defaraat foofu ba mu baax parce que suñ ko wanee nit ñi ñu xam ne c'est possible. Mhm. parce que problème ndox bi ñun dañ leen jox ay solution ñoom dafuñu ko ñooy leen maintenant comme que ñoom. du ñu déglu discours. dañuy tax ne discours politicien la mais on va agir. et ils vont dire ñii lu ñuy wax mën na nekk c'est pas parce que dañ koy wax xam nga mu nga ne problème bi mooy defaat ay puits de quartier alimenté par des panneaux solaires euh, daf kii jigéen ñi au moins ñu a root mais ils vont dire mais kii discours politicien lay def mais on se limite pas à ça on le fait ñu gis ko seen bët maintenant ñooy leen comme que war nañ leen exemple yéen daf leen ko c'est pour cela ñun noonu la ñuy defee politique mu bëgguñu ñëw rek di critiquer di critiquer mais dañuy euh, proposer préposer apporter quelque chose yoon mhm. dañuy wane yoon normalement sax loolu mooy opposition waroo toog di critiquer rek di di kaas mais yow koo gën jege opposition bi wala euh, régime bi non je suis dans l'opposition c'est-à-dire euh, dans l'opposition d'accord lu ñuy wax a ngexoox je suis opposant au niveau national aussi ànduma ak benn parti mais je suis dans l'opposition Euh, jàppalewu ma ñu nekk si nguur gi parce que nu ñuy doxalee man giseewu ma noonu. d' fédération bala ñuy ñëw ci yeneen ponk yu am solo juste une deux minutes fédération mm. des organisations républicaines sénégalaises exactement. waaw loolu mooy force. Mm-hmm. Euh, mu nekk benn kuréel bu ñu tegee euh, fee si Paris en fait euh, politiques yu nekk Paris dañu ne am na combat de principe yu ñu war a mën a mëne ensemble pour xeexal suñu démocratie dëkk xeexal euh, justice indépendante xeexal transparence des élections donc ñooñu nañu dajee pour xeex loolu maintenant fédération bi amul visée électoraliste mm-hmm. c'est-à-dire du ñu ànd fédération bi pour dem élection maintenant xeex yu am Sénégal yëpp nañ ci ànd jàppale si Sénégal yi au niveau international et au niveau national pour amal xeex boobu donc ay kilifa nekk ci. Mhm. ñu mettre ko en place di si góorgóorlu di mën a combat yu sénégalais de l' extérieur yëpp. Mhm. di mën a à l' et puis di jéem a yaatal ko fii Sénégal ba nit ñi di am ay combat politique. Mhm. sans pour autant attendre benn visée électoraliste parce que gis nañ ne souvent coalition politique yi. dañuy daje mais objectif bi mooy nu ñuy demee élection mm. te élection su jotee duñ ci ànd dañuy mujjee xuloo donc analyse yooyu noonu yëpp lañ def ñu ne bon bu ñu naxante suñu dajee fii yow Ahmed yaa ngi ngeexoox bëgg fa nekk maire kii mu ngi fële parti politique am la yor kii mu ngi fële parti politique am la yor maintenant comme que suñu dajee fii xam nañ ne peut-être du ñu ànd élection législative wala faneen mais te suñu doole mun nañ ko joxante pour xeex leneen nañ joxante suñu doole rek daf ko ngir Sénégal bañ ci xalaat ëllëg ñu utiliser tour force pour dem élection. donc mm-hmm. loolu ñu d'accord ci ne duñ ci demee élection tour force mais nañ ci mën ay combat yoo xamante ne Sénégal yëpp ñoo ci bénéficié après nag ku nekk dem sa organisation bopp xeexal sa bopp. politiquement et pour am sa électorat bopp. voilà ñu laaj la ci beneen ponk bu am solo mooy le retour des cerveaux maanaam da ngay gis ni doomu Afrique yi wala doomu Sénégal am ñoo xam ne euh, dañuy am par exemple le baccalauréat état wu Sénégal investir si ñoom wala seeni waajur investir si ñoom ñu dem jàngi hmm. France wala jàngi États-Unis un peu partout dans le monde mais parfois bu ñu jàngee ba pare pour ñu ñëwaat ça pose problème euh, peut-être dama lay poser question parce que exemple nga euh, jàpp naa ne euh, hmm. jàngee nga foofule ca ca ca France amee fa say say yu baree bari tey ji yow ban xalaat nga am ci le retour des cerveaux parce que jàpp nañ ni bokk na si li tax Afrique mënul dem hmm. Sénégal mënul dem boroom xam-xam yu bari yoo nañ servir euh, war nañ servir le Sénégal ñi ngi dem euh, toog di servir tubaab yi waaw euh, ban xalaat nga ci am quel est le problème exactement en fait foofu da nga koy xalaatee comme problème yëpp c'est hmm. à deux niveaux tout le temps c'est au niveau individuel et puis au niveau de l'ensemble de l'institution de l'organisation hmm. maanaam lépp loo gis am nay Sénégalais yu bëri yu ñibbisi ñu jël seen décision bopp seen pexe bopp seen jàmbarte bopp nekk ay entrepreneur ñibbisi hmm. décision individuelle moo si ëpp doole volonté individuelle doole parce que soo jëlee décision mu ne ah man kat jàngi naa te tama foofu laa am bànneex foofu la samay mbokk nekk foofu laa bëgg di nga wut say pexe ba ñëw ak lu mu metti metti nga nekk fi góorgóorlu loolu dañ ciy encouragé ñëpp parce que pour man mooy voie bu gën a wóor ak si lépp nag ku nekk jëlal sa bopp décision bopp nga ne man je suis sénégalais j'aime le Sénégal et je veux servir le Sénégal je vais chercher les voies et moyens revenir sans imposer rien à personne su ma ñëwee dëkk bi lu fi ne na góorgóorlu si jéem a xeex loolu mooy mooy mooy dëgg bu njëkk maintenant ñoo xamante ne dañu bëgg jël lépp imposé ko état ne état moo ko war a mun nañu wax dëgg état mun na organiser loolu fekkee état bi am na vision boobu am projet boobu ak ñoom am ay am benn loolu ak ñoom mais ñoom tamit suñu ñëwee nañu xam ne dañ ñëw pour servir dëkk bi parce que ak loo mun di wax lu ñu am bitim réew souvent pour ñu amaat ko France du yomb lu ñu am Sénégal fii du yomb mm, mm. donc foofu dañ fa nekk conditions yu baax am sécurité sociale seen njaboot nekk école yu baax am avenir mais loolu yëpp ñëw ne da ngay defar si Sénégal di ko imposer état bi. état bi parce que sacrifice la ñëwaat bi fii moom sacrifice la fekk sa bopp dong ngay xalaat. Mhm. doo ñëw maintenant euh, à l'état d'avoir benn vision pour. ñooñu parce que xam-xam mooy doxal réew. Mhm. te xam-xam bi am nañ ko. Mhm. donc mu jël ay secteurs yoo xamante ne dañ leen ci soxla ñu def ay projet investir gars yi ñëw liggéey Sénégal sachant que suñu ñëw aussi. nañ ko jàppee mission la ñuy nekk pour seen dëkk mais pas parce que lu ñu mënul woon am foofu wala ñu bëgg am fii lu ëpp lu ñu am foofu. Hmm. Sénégal moom parce que souvent dañuy xeeb lu ñu war a am fii. ak niveau bi ainsi de suite parce que mënoo tàmb am benn niveau de salaire benn niveau de vie bi yenn sécurité sociale ah euh, benn cadre de vie bi nga ñëw ñu bëgg a wàññee lépp nee la ñëwal lekk euh, toog nii ñu xool la ba pare nga gis nag si dëkk bi. Hmm. ay yenn politiciens yi di détourner di yor ay milliards. nga jàpp ne ñii lu ñu am nii gën ñu la ko mérito te yaa ngi si dëkk bi comme ñoom et ñu teglee tegee la de côté rek moo tax ñu si bëri aussi di xalaataat mhm. mais comme ni ma ko waxee voie bu si gën a gaaw mhm. mooy la décision individuelle maintenant sénégalais yu bëri suñu ñibbi seendoo ñoom ñëpp ñu nekk ay xeexkat ñu daje fii nañu bokk ci xeex yu nekk ci dëkk euh, bi mais yow gisoo ni c'est injuste pour pour sax euh, euh, sénégalais bi nga xamante ne ay waajuram ñoo ko fayal sax mu jàngi peut-être à la rigueur bu demee toog sax mun nañ comprendre mais ki nga xamante ni dafa am baccalauréat état wu Sénégal jël ko en di ko fayal bu di ko jox bourse chaque fin du mois jël ko en charge est-ce que kooku normalement war na pare ay études am ba pare daal di toog ne du ñibbisi. mais dans ça l'État est responsable l'État bi su bëggee ñoom ñu ñibbisi nañ ñibbisi parce que. mun na def ay convention ak ñoom ne leen ok seen jàng lii laa si dépensé foo leen paree le choix c'est simple vous payez sa dans prêt la nga ñibbi si sinon euh, ñu ñun am nañ ay ay ay convention ak foofu mais nag loo si xamul la plupart ñu fa nekk jël nañ seen nationalité bu yàgg ba nekkatuñ ay sénégalais. Mm-hmm. donc dañuy dem di ñëw. Mm-hmm. donc état bi nag maintenant su bëggee liggéey ak ñoom moo koy enclenché mënu ko xaar si ñoom. parce que ñoom mais loolu est-ce que tamit du beneen échec. dem. non xam nga livre ne l'Afrique au sommet. waaw xam nga loolu noonu si la bokk cest à compétence. Mhm. état moo koy seeti moom moo soxla dafa mel ni yow soo créé woon tey sa entreprise yaay xool ñu am xam-xam nga jëli leen maintenant soo toogee nga ne boo xam-xam yi nañ ñëw suñ ñëwul ah yow yaay yàq sa yëfu bopp. Mhm. état comme que moom mu investir woon si ay nit pour soxla ay compétence fekkee ëllëg da bàyyi si dëkk bi bàyyi leen bitim réew moom jéem a lijjanti parce que état souvent Euh, dana joxe bourse mais si la yem du leen suivre du waxtaan ak ñoom du def dara et lien bi day rompre complètement am ñoo xamante ne dem nañ fa takk nañ fa ay soxna nekk nañ si leneen ñooñu état su amul projet bu sérieux ak ñoom benn communication bu bu kii bu jaar yoon du ñu gaaw a mën a ñëwaat maintenant la responsabilité à ce niveau c'est l'État qui a investi des milliards et qui doit faire en sorte mu am retour sur investissement am retour état bi nag. fekkee moom parce que investir comme ça pour pour mm. euh, ñoom du ñu topp du ñu topp loolu. Mm-hmm. maintenant nag ak loo munti wax nekkul pertinent parce que nag sénégalais extérieurs yi liggéey bu ñu liggéey foofu souvent xam nga état bi sax dafa mel ni loolu moo ko gënal. Mm-hmm. parce que ñooñu suñu toogee foofu. Mm-hmm. liggéey fa. am pouvoir d'achat ñoo ñu tabax ay kër dëkk bi donc benn dëkk boo xamante ne lu fa waa diaspora daful amu fa ñu ngi tabax seen i kër. Mhm. di cotiser pour defar ay dispensaires di envoyer seen mbokk yi climat mhm. social bi yem. Mhm. donc peut loolu soo xoolee état bi peut-être dañ ne bon ñii soo analyser lu bëri bëri. est-ce que sax lii gënalu ko ñu dugal ay milliards mille milliards par an di yónnee xaalis di investir di tabax ay kër alors suñu ñëwee fii peut du ñu mën a xëcc cet argent là. qui vient de l'Occident ñoom ñu koy jëlee foofu di ko fayeeku di ko dugalaat Sénégal. est-ce que yow pare nga ñibbi si yow. man maa man Ahmed Diallo non man moom. Hmm. ñibbi si Sénégal. wax bu yàqu la. ñun Sénégal ndax lu tax. parce que non Sénégal la ñu gëm fii lañ bëgg a nekk. mais yaa ngi sax am sa entreprise en France. waaw xam nga entreprise mu nga ko am partout Sénégal. maintenant nekkul foo am entreprise rek. Mhm. ngay nekk di fa di fa di fa dund. Mhm. donc nañ Sénégal aussi ñu ngi fiy euh, teg entreprise di fi jéem a teg yeneen maintenant l'objectif final. c'est de passer la majeure partie de notre temps ici maintenant comme tous les chefs d'entreprise mu ngay voyager faneen et puis suñu mënee ibi entreprise ba Japon ba Chine sax dañ koy def mhm. parce que le plus important mooy nga am ay moyens d'action après maintenant fooy dëkk moom loolu ce choix personnel la te ñun suñu choix mooy dëkk Sénégal rawatina dëkk biir Kamba Ngexoox. Mhm. voilà ñu ngi leen di fàttali yéen ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii euh, Ndeye Comba Moreau dalal Ameth euh, Diallo nekk ingénieur euh, de formation ñu laaj la ci beneen ponk bu am solo di problème mu emploi des jeunes fii ci ci Sénégal gis nga ni tey ji emploi des jeunes problème bu rëy rëy la ñu gis ni état bu ñëw wala régime bu ñëw dafay daal di échouer récemment boo dégloo. discours le président Macky Sall surtout si euh, crise affaire Sonko Adji Sarr da ngay xam ni sax reconnaître na euh, carrément que emploi des jeunes problème la fii ci Sénégal que moom war na ci def tamit régime yi ñëw war nañ ci des euh, yow tey jii lan ngay proposer par rapport mhm. ak problème mu emploi des jeunes am nga problème mu emploi des jeunes ak problème yu nekk Sénégal yëpp lu ma koy waxee toujours problème de vision la de démarche mhm. on est dans un pays où tout part d'en haut et maintenant balaa mu ñëw si suuf affaire bi jaxasoo na suul euh, ko lëndëm mhm. c'est-à-dire le président de la République ne peut pas se limiter à donner des milliards et à ne pas le suivre correctement et puis ñu ne emploi des jeunes def nañ ci temps et puis jeunes yi amuñu emploi lu ma gëm mooy le problème dans ces pays dans notre pays si kii lañ koy réglé si duñ commune parce que là le problème est là xamante ne yi mhm. la ñu war a décentraliser totalement projet yu ñu am yëpp programme yu ñu am yëpp foofu noonu population yi xam nañ ñu fi am problème xam nañ ñu war a am emploi xam nañ problème yi ñu war a régler déjà dans nos communes mais y a tellement de problèmes à régler si problème mu mbalit gi si problème mu façon bu ne. Mm-hmm. mais loolu noonu c'est yooyu noonu xale yu nekk si communes yi ñoom ñu doxal loolu parce que emploi nu ñu koy créer mooy nga gis problème fas yéene ko ñu koy régler da leen fay soo leen fayee maintenant ñoom lu ñuy régler day am retour sur investissement. mu nekk genre entreprise soit mu nekk dans le totalement lu ñu koy def njëriñu ñëpp la. Mhm. c'est pas rentable mais c'est l'État qui paye et qui récupère ci impôts donc la méthode bu gën mooy il faut décentraliser les politiques publiques dem régler les problèmes de base avec les populations et en réglant les problèmes on crée des emplois parce que ay nit ñoo koy régler te nit ñooñu suñ koy régler il faut il nga leen nga leen di fay maintenant fekkee on est ci euh, ay problématiques yu mag yu nekk ci kaw yoo xamante ne ñu koy régler sax souvent. ay expertise lay laaj ak wala yenn euh, yenn cabinet de conseil yoo xamante ne booy duñ ko gis et souvent milliards yi ay études ak si cabinet yeeg lu si bëri fa lay yem. foofu lay yem fa lay yem balaa muy wàcc ci suuf. Mhm. ay tokk mooy des lépp mhm. jeex na. ñu def ay séminaire fii ay forum fii loolu yëpp ay wax la ay bind. te concrètement les problèmes ne sont pas réglés. ne sont pas réglés. donc ñu dem si suuf ñu gis problème yi ne ah lii dañ ko war a régler dëkk bi yëpp amul lii li amul lii amul lii. ah pour lijjanti ko tant de main d'œuvre lañ soxla ñu liggéey ak ñoom et puis bu yàggee problème yi dinañ réglé wu nit dinañ am emploi et puis euh, moo gën a moo gën a viable. DER bi ñu teg nag DER bi état wu Sénégal teg développement à l' entrepreneuriat rapide yow loo si xalaat. waaw xam nga DER bi dans l' nekk na lu baax euh, mais entrepreneuriat rapide moom amul loolu noonu nit yi wax nañ ko waxati ko. amul entrepreneuriat mënul rapide. lu tax nga wax loolu. entrepreneuriat nu muy rapide loo xamante ne déjà dafa war a durer soixante cent ans xam nga entreprise soo koy créé. Mhm. durée de vie déjà soixante ans. Mhm. léegi nga ne nga ne nga ne da ngay def entrepreneuriat rapide. Mhm. loolu kay moo jëlal xaalis bi dépensé ko rapidement. moo tax euh, yenn militant politique yi dem jël xaalis bi di ko dépensé rapidement. entrepreneuriat dañ ko war a financer parce que adduna bi capital moo koy doxee maintenant suñu defee benn capital ay trente milliards par an loolu lu baax la parce que dañaa soxla capital soxla financement maintenant nag nan lañ koy nan lañ koy lañ koy joxe ak nu ñu leen di accompagner. loolu mooy wax ji te loolu. loolu yëpp tamit ça pose problème. loolu moo des ci der parce que ñu bëri dañuy jël xaalisu état mais duñu duñu duñu fay. pour ñeneen ñu mën a bénéficier wu. Mm-hmm. te tamit parfois dañ koy jox ñoo xam ne amuñ projet bu dëgër maanaam amuñ gëm-gëm am na ñu naan sax nañ ko jox ñi nga xamante ni par exemple li nga gis ku yor benn restaurant bu ndaw mu leen kii am na si lu mu nekk su ma ko joxee benn somme bi entreprise am dina développer moom tamit dina mën a mën a dem fayaat état bi dinañ mën a lebal keneen yow lan ngay xalaat. xamante ni déjà ngi si dara wala ngay fekk yoru dara nga jox ko ko. ñëpp lañ ko war a jox parce que sénégalais yëpp a ko mérito. Mm-hmm. maintenant à qui la faute c' est l' état qui donne son argent. Mm-hmm. xam nga yow soo demee banque lépp mu laaj la garantie soo ko fayul xam na nu muy def. pourquoi banque yi ëpp sérieux ak rigueur état pourquoi état ëpp moyen banque banque mun a joxe projet am di jënd ko ba di su mm-hmm. di gën am xaalis. état di joxe di ñàkk. di ñàkk maanaam état moo lactis. kenn du fay état moo donc état bi moo war a jël responsabilité am mhm. ba moom lu mu dugal yëfam da kay topp parce que nit ñi day dem ba respecté wuñu état parce que il les prend pas au sérieux mais ah li xaalis politicien la parce que politicien yi gis nañ leen mhm. xam nga soo sàccee soo gisee keneen di jël lu mu fayul doo ko topp mhm. parce que coow ngay bañ indi si dëkk bi mais état bi fekkoon am na crédibilité am sérieux su amee contrat déjà contrat moral ak population population bi nañ xam ne seen ñu ngi góor góorlu di jël lu ñëpp bokk leen ko jox ñu ko foowee parce que l'argent public est sacré mhm. kuñ ko jox waroo ko foowee mhm. maintenant loolu nag état moo koy wane maintenant soo amee état boo xamante ne population yi euh, jëluñu ko au sérieux respecté ko dañuy naxanteeg moom rek te loolu noonu moo am ci dëkk bi programme état yëpp nit ñi dañuy ne ah état moo ko joxe xaaral ñu dem te même population yooyu noonu mhm. di bañ a fay ku fi dem banque fay sinon ñu nangu sa kër wala ñu nangu sa garantie boo joxe woon donc l'état n'a qu'à agir comme les entreprises privées daf sérieux daf rigueur mm-hmm. bu ko defee programme yëpp dina jaar yoon parce que population yi bañ ñu ko comme que ñu ngi koy def fii mën nañ ko def ak état c'est à l'état de jouer son rôle. voilà beneen ponk bu am solo di euh, émigration euh, clandestine yow lan ngay wax euh, les candidats à l'émigration clandestine. waaw ñooñu aussi. Mm-hmm. man la may wax ay jàmbaar lañ. ah xam nga soo nekkee dëkk nga xool xool xool ba munoo fii tekki nga bëgg a dem kenn du la du la xupp dans tous jàmbaar nga parce que tekki bëgg nga ko xam nga su la neexoon nga toog di ñaan di def yu ñàkk fayda di sàcc di xaar événement am nga profité aussi mais yow yaa ngi ne fii nii xool naa ba sonn amul xaaral ma xooli faneen donc kooku jàmbaar la donc am na lu gën a metti mooy jàmbaarte. Hmm. jël saa vie en main. Hmm. maintenant euh, lu si ëpp solo mooy il faut pas nit di def dundam en danger parce que tamit ak looy wuti wuti wuti wuti soo sànkoo si yoon bi. yaa ngi yaa ngi gaañ sa bopp te fu ngay dem aussi souvent mun nga fa bañ a fekk loo fay loo fay xaar. Mhm. mais lu ñu war a wax mooy état bi aussi euh, war na xoolaat ñooñu parce que ay jeunes la yoo xamante ne euh, ils sont déterminés dans la détermination. Mhm. ñoom ñëpp lu ñuy defee bitim réew su leen jàppale woon fii encadré leen mën nañ ko am mais comme que gis loolu on ne va pas euh, di leen xas naan leen dañuy xaru wala yooyu non ay jàmbaar lañ. mais est-ce que yéen comme yéen ñi nga xam ni peut-être am ngeen chance nekk Europe xam réalité yi xam Europe euh, wala euh, Occident bu démb ak bu tey ak crise bi nga xamante ni moo am foofu est-ce que di ngeen def ay campagne euh, sensibiliser jeunes yi ñu xam ne maanaam Europe du Eldorado maanaam du ñëw rek di for xaalis wala du benn paradis comme ñoom ni ñu ko xalaatee Barça wala wala wala wala Barça ainsi de suite parce que jàpp nañ ni peut-être bu ñu yeggee Barça rek ñoom foofu la vie tout est rose est-ce que yéen a ngi def ay campagne pour euh, sensibiliser les jeunes sur ça. waaw xam nga di gis nga sénégalais yu nekk yu bëri nekk à l'extérieur mu metti mhm. te ñibbisi wuñ parce que ak loo mun ti wax ak loo mun ti wax daa am ñoo xamante ne seen nekkin foofu lu mu metti metti ak lu mu fa yàgg-yàgg moo moo tane seen nekkin Sénégal am ñoo xamante ne seen nekkin Sénégal moo gën ci ñoom parce que am nañ ay waajur am nañ ay mbokk yu am ak yooyu mm-hmm. mais am ñoo xamante ne fii dara lañ fi amul mm-hmm. amul benn sécurité sociale alors que les gens ailleurs au moins am seen benn carte AME pour mun a faju jéem a insérer système bi mm-hmm. et puis am seen sutura bopp nekkatuñu ay autour ñoo xamante ne ñu ngi leen sonal di leen xas di leen ñàkkaloo fayda donc loolu noonu la ñu war a xoolaat lan la ñuy teg fii au minimum ba nit ñi ñu nekk am benn sécurité sociale. yow da nga bëgg a wax maanaam euh, Europe bi lu métti métti moo tane ne moo tane Sénégal foofu lu métti métti métti lu métti moo tane Sénégal gis nga ñu naan. yow da ngay tax a dem jël gaal moo tane Sénégal loolu mooy. dëgg bi lu métti métti. ma ne Europe. Mm-hmm. Europe ak Sénégal dañaa yem. Mm-hmm. moo tane dañu war a xeex nag Sénégal tane ko mais suñu nekkee fii di nax suñu bopp parce que ñoo xamante ne ñoom ils ont des milliards au Sénégal duñu wax loolu mais c'est minorité dans ce pays c'est même pas pour cent donc ñooñu mun ñu toog ci télé yi ñoom lu déjà lu ñu sol rek. Mhm. di nga nit liggéey at du ko am. du ko am muy jox booy leçon de morale. mënul mhm. nekk mënul nekk. mais ñoom souvent ñooñu nag ñooñu ñooñu. Mhm. ñooñu Sénégal moo leen gënal Europe. mais am na ñoo xamante ne fii. Europe lu mu metti metti metti moo gën Sénégal maintenant lu ñuy ñaan mooy Sénégal gën Europe. loolu la ñuy ñaan moo tax moo tax comment ça ñiy jël gaal yegg foofu Europe comment ça se xam nga. Euh, amoo papier amoo dara amoo parfois jàngoo sa jàng soriwul amoo qualification professionnelle jékki-jékki rek yegg si noonu. Europe dëkk bi moom c'est vrai que Europe c'est fait pour ñu am xam-xam pour ñu jàng pour ñu am qualification pour ñu am këyit. donc mm-hmm. loolu mooy système de base bi soo si nekkee. exactement yaa ngi jàll maintenant ñoo xamante ne nag. Mm-hmm. nekk si loolu comme dëkk yëpp lu ñuy wax système de am na si ñu ngi def seen euh, di jaay di dugg fii di def seen euh, emploi clandestin. et puis di yónnee seen njaboot di si nekk di bokk benn néeg mu metti ñu bokk ko ñoom ñu bëri condition de vie yi metti mais ñu ngi si parce que gis nañ ay opportunité malgré que mm-hmm. économie bi c'est fermé metti na lool mais doo leen gis ñu ñibbisi ku ñu forcé wul ñibbisi te ku ñuy forcé sax du ñëw yow looy nekk fu nakk ñu lay forcé nga bañ a ñibbisi donc bu ñu nax suñu bopp nañu fexe Sénégal mel ni Europe moo gën ñuy toog fii di leen jox leçon de morale naan nañ ñëw mm-hmm. Sénégal moo gën a kenn du fa kon gis nga ni lépp rek day ñëwaat si si lépp day ñëwaat si régime bi ak responsabilité ñu jiite dëkk bi ñoom ñoo war a xam ne dëkk bi dafa war dafa war a développé dëkk bi alalul dëkk bi ñëpp ñoo ko war a bokk warul profité benn minorité boo xamante ne ñoom dañuy euh, nekk foo xamante ne parce que Sénégal fii am na ñoo xamante ne lu ñuy dund fii ñu nekk France dunduñu ko ñoo gën a neexle foofu mhm. ñoom dañuy dem Paris vite fait ñëwaat nekk du wër pouvoir d'achat bu ñu nekk Europe amuñu ah, ko mais nax suñu bopp faut pas nga gis ñu ko am rek nga jàpp ne Sénégal noonu la mel. Mhm. Sénégal du Dakar waxuma la nga dem si yenn quartier Dakar yi. Mhm. mais génnal Sénégal la nga dugg faneen si àll bi mhm. wala dugg faneen. dugg sax si banlieue bi nga xam Sénégal dafa metti donc loolu nañ ko gis en face ñu xam ne dëkk bi dafa metti bu ñu nuyee réalité bi suñ ko nuyeewul rek nañu régler problème yi mais suñ koy nuyee di jox ay leçons de morale di naxante di jox booy nii te joxoo leen dara booy ñooy xëy rek def révolution ci dëkk bi. mu ngi noonu euh, comme bi nga xamante ni amoon na fi ak euh, affaire Adji Sarr Sonko beneen euh, question boo xamante ni dina la intéressé comme que yaa ngi bëgg mairie bu Ngexox report élection locale yi gis nga fan yi ba léegi waxtaan ba jiboo amul opposition bi bëgg na élection locale yi ñu def ko deux mille vingt et un bi pouvoir bi deux mille vingt deux la bëgg yow loo si xalaat. waaw élection locale ak élection. yëpp ci dëkk bi dañu war a respecter date yi mhm. parce que daa am loo xamante ne mooy tax état crédible mhm. xam nga état suñu la waxee da nga a organiser mënoo organiser daa am lu muy ndural mhm. loo xamante ne yow suñu sécurité yaa ko yor yor suñu kaaraange yor suñu budget yor lépp et puis mënoo respecter ay date mënoo respecter ay délai te loolu dañ koy gis ci projet yëpp projet état boo gis day retard mais loolu daa am lu muy ndural alors que yeneen dëkk yëpp datu élection temps la day bi temps lay pare day pare mais dëkk ne lépp lu ñu commencé mu loolu moom c'est c'est pas normal que ku ko wax ak koo waxul xam nga ne dañu fay ay nit organiser élection nekk seen mbir. Mhm. waroon nañu anticiper lépp ba ko def. Mhm. temps mhm. mais comme que defuñu ko tardé nañ léegi situation mel nii. ñu bàyyi ba 2022 pour yow. non non man xaw man opposition bi lu ñu wax mun nañ ko organiser 2021. mais doo xool lu gën a logique. lu gën a raisonnable lu gën a raisonnable. mooy suñu jàppee nekk. ci liggéey conditions yi gën a réunir. non suñu nekkee si liggéey. waaw xam nga daam ñoom dañ leen fay. ñu war a liggéey tout le temps suñu nekkee si liggéey. am nañu les moyens de l'organiser kii boobu maintenant nag suñu bëggee mhm. euh, di xaw a liggéey nii di jël seen temps baa mën nañ ko organiser sax 2024 parce que du mhm. pare mhm. du pare maintenant doo dañ koy liggéey nit nag da nga koy topp mu am sérieux am résultat et puis mu bañ a am euh, laxisme ñu ñu ñu ñu confier organisation élection bi nañ ci nekk suba guddi ngoon ba xam ñu renforcer leen yokk ay nit ba xam de lépp du pare. voilà nga am euh, beneen euh, peut-être euh, loo am solo loo xam ne andil nga ma ko démb di ab livre nga tuddee ko l'Afrique au sommet du monde nga ci wax juróom ak ñaari clé acteurs yoo xamante ni bu ñu ko tegee Afrique dina mën a changer Afrique dina mën a nekk ci kanam mais est-ce que Ahmed Diallo yow nekkoo di rêver. ak dirigeants yi nga xamante ni Afrique moom la am reconnaître nañ ressources yi fi am ainsi de suite mais esprit bi nga xamante ni euh, dirigeants yi moom la ñu am Afrique naka lay nekkee au sommet Afrique ba hmm. léegi mu ngi ci gannaaw de waaw le rêve est permis déjà l'utopie est permis déjà hmm. faut pas que aussi faut pas que gis nga àdduna loo xalaatul loo rêvewul hmm. loo yaakaarul mu nga xam doo ko mës a am xam nga soo toogee rek ñooy la euh, Ndeye Mariam yow mun am benn portable loolu mënuma ko am doo am doo ko am da ngay jàpp ne mën naa déjà mm-hmm. Mm-hmm. bëgg naa déjà après nga nekk ci donc ambition bi mooy Afrique nekk au sommet du monde mais comme maintenant comment euh, yoon yi day bëri am ñoo xamante ne ils pensent que tout doit passer par l'unité africaine à travers une organisation solide et puissante euh, puissante am ñoo xamante ne dañuy jàpp ne lépp dafa war a jàll si dirigeants yi donc ñoom lépp dirigeants yi lañ koy xëpp am ñoo xamante ne comme man dañu jàpp ne lépp dafa war a jàll si Euh, nit ñi les hommes ce que j'appelle les acteurs du changement mm-hmm. maintenant les acteurs du changement s'ils portent en eux-mêmes le projet et qu'ils mm-hmm. délèguent pas cette mission mm-hmm. ne ah dañu war am unité africaine di ko wëy di ko kaas di ko wax ah si loolu ñaan suñu dirigeants yi dañaa dañaa triant dañaa sérieux dañaa topp tubaab bi mais yow concrètement qu'est-ce que tu fais et c'est pour ça je donne des clés clés yi mu nga ko résumer waat ñett mooy politique mooy entrepreneuriat mooy développement personnel chacun de nous doit prendre sur lui mhm. euh, la mission de travailler sur ces trois éléments en ayant en esprit lu muy def noonu mhm. dafa war a nekk euh, euh, mission pour Afrique nekk au sommet du monde mhm. développement personnel nga fexe ba am ay compétence nga fexe ba am ay pexe nga fexe ba yokku sa bopp nga fexe ba maitriser sa bopp maîtriser ses émotions ba nekk une personne capable de servir et d'être utile à sa communauté loolu sa mission bopp la entrepreneuriat mooy nga créer richesse. Mm-hmm. fexe ba euh, richesse am ci dëkk bi nga participer ci soit en étant entrepreneur soit en étant dans des entreprises yoo xamante ne sa mission mooy fexe mu dox. beneen bi mooy politique politique c'est pas le plus important je le dis dans le livre développer pourquoi la politique. mais politique mooy doxal réew. politique c'est tout est politique politique nekkul luy doxal réew nañ ci ñëw xaaral ma eggali raisonnement bi après ma ñëwaat ci loolu. Mm-hmm. politique c'est important politique mais, mais moom nga jiital fii. non waaw politique politique développement. waaw entrepreneuriat waaw politique justement premier sujet yu ñu yu ñu développé euh, politique la ñu expliqué mooy quand un jeune. Mhm. veut servir son pays. il se pose la question fu muy commencer et souvent il va vers la politique parce que loolu la gis ñëpp di def. Mhm. maintenant je donne benn exemple par exemple euh, si livre bi deuxième guerre mondiale euh, soo xoolee euh, Angleterre Allemagne dañ leen dominer woon mais techniquement lañ leen dominer woon. donc allemand yi seen machines yi mënuñu ko woon euh, munuñu ko woon décrypter. Mhm. maintenant fekkoon politiciens ay politiciens rek ñoo nekk si dëkk bi ñu dem seen assemblée nationale di def discours. Mhm. naan non machine yi dañ ko war a décrypter wala lii benn machine mooy décrypter wu. c' est yoo mhm. xamante ne ñoom ñoo xañ seen bopp ay nalaw. xam kenn forcé wu leen su leen neexoon ñu toog comme ñëpp naan politiciens yi nañ liggéey mais dans l' intimité et l' de la connaissance qu' ils ont ñoo toog seen rëkku tëddatuñu ba liggéey loolu ñëw di ko proposer politiciens yi politiciens yi sax di hésiter naan yéen seen affaire bi est-ce que day dox ñu imposer. Mm. wax daf lobbying ba gars yi débloqué xaalis ñu financer les machines de Turing machine yooyu noonu tax ñu décrypter code yi code yooyu noonu tax ñu baat Allemagne yi maintenant dans un pays politiciens yi fekkoon ñëpp ay politiciens lañ di wax rek. Mm-hmm. te kenn amul. Euh, jàmbarte mm. jàmbarte jàng gëstu. wut xam-xam nu muy doxee donc lu njëkk mooy ku nekk si yow nga ne damay wuti xam-xam maintenant au moment de servir je sers mhm. soo amee xam-xam ba pare ah wut ay gi maintenant nag politique xam mooy lan ñun am nañ xam-xam am nañ alal mooy mhm. développement personnel entrepreneuriat maintenant loolu noonu yëpp ñu am nan lañ koy gérer pour mu ëpp doole mhm. pour mu euh, gën a dem sori pour mu nekk exponentiel donc on ne peut pas dire que la politique est euh, plus importante parce que politique seulement moom damul fenn mooy lu ñu gis rek ñoo xamante ne dañu jàpp ne dañ leen di fal ñu toog di wax. Mhm. non mais man waxuma politique boobu. non politique boobu sax. Mhm. même politique boo xamante ne maanaam même même le groupe promo consulting. am na une sorte de politique. bu koy doxal côté boobu laay waxee mais politique boobu balaa muy dox. mais pas politique politicienne. politique boobu balaa muy dox. Mhm. yéen ñu jël leen yow Ndeye Mariam nga xam-xam. est-ce que euh, borom kër gi su jëloon ñoo xamante jànguñu journalisme jànguñu dara mu teg leen fi mu ne kaleen ñu def benn. politique de benn groupe de presse après ñu ne dañuy dañuy organiser politique groupe bi dina dox. du dox donc la substance. mooy nit yi am xam ñi am xam-xam bëgg ko. Mhm. te xam-xam kenn du la ko forcer de. Mhm. état bi mun na def ay écoles yu nganda ngand. Mhm. def si ay milliards mais soo bëggul jàng doo jàng de da ngay dem toog. faaw nga am pas-pas am pas-pas te loolu noonu moo moo ëpp solo par exemple tey su ma gañee mairie Ngexoox bëgg ko développer man kese mënu ma ko su ma xoolee autour amul kenn xam boom xam-xam nu ma koy defee. Ah, il faut être bien encadré il faut chercher des gens. qui ont la connaissance maintenant la volonté politique et la transparence c'est ñu regrouper doole yooyu yëpp. pour doxal politique nag donc jamono boobu lay doog a ñëw. Mhm. pexe yi su amee xam-xam yi am xalaat yi am maintenant loolu noonu yëpp ñu boole ko. Mm-hmm. Mm-hmm. pour euh, pour daf politique. mu nekk muy mm-hmm. exploser. temps bi euh, bareetul Ahmed Diallo euh, l'Afrique au sommet du monde moom la du les sept clés des acteurs du changement Ahmed Diallo bind si lépp loo xamante ni peut-être africain yi su ñu ko defee muy sénégalais bi muy africain yi Afrique dina mën a nekk au sommet comme ni ma ko waxee c'est un peu compliqué mais le rêve est permis mbaa sa livre bi cherul. non livre bi cherul mais hmm. le plus important c'est pas la vente de livres c'est hmm. les idées qu'on bëggoo si am xaalis non non non lu ñu si am yëpp ñu ngi koy joxaat ah, nit ñi alkaali yi bëggu si am xaalis lu ñu si am yëpp parce que ñun li ñu gëm mooy les idées là on a <laughs> hmm. on a on a des idées et on aimerait que nos idées Euh, soit épousé par la jeunesse et par cette jeunesse qui croit. gën amal solo mooy ñu ubbi livre bi. lire ko jàng ko xam lu si nekk xam si nekk ñu waxtaan si exploité ko. c'est ça surtout. Mm-hmm. Euh, peut-être dernière question parce que temps bi bareetul euh, nga wax ñu sa xalaat ci li nga xamante ni moom mooy le problème du troisième mandat en Afrique parce que gis nañ ni sax ku toog rek même suñu président Sall bi ñu ngi am yaakaar ni dafa bëgg a laaj en troisième mandat ban xalaat nga si am exactement. waaw problème ak problème yu bëri Afrique mooy ñàkk respecter sa population. Mhm. ñàkk respecter les lois. ñàkk mhm. respecter constitution. gis na dëkk soo fi nekkee nit ñi say naw la leen suñ la falee moomoo leen. mënoo mhm. ñëw di def lu la neex dañ la fal app bi jeex na da ngay dem xam nga lu gën a doy waa fu démocratie euh, sukkeekoo. la Grèce antique. ñoom lu ñu doon def suñu falee nit. mandat bi si jeexee rek dañuy ouvrir benn procès contre la personne. directement. pour saytu lu mu def mais a dem. donc troisième mandat moom constitution bi da ko tere président wax ko ci làmminam waxaat ko. Mhm. warul sax di xalaat di ko def. Mhm. yow am ngay ambition présidentielle yow. non ñun. Mhm. du ñu am xam nga. non Ahmed Diallo yow am nga ambition présidentielle waaw wala déet. malheureusement question bi dafa ñëw fu fu kii. dafa ñëw fu fu fu mu jeexee. mais dinañ dinañ ñëw faneen parce que xamul tax. dañu am benn idée si comment faire la politique dans ce pays. et pour le résumer la politique. doit se faire dans nos communes et pas au niveau national nous devons faire en sorte. que l'activité politique dans nos communes d'abord d'abord ouais. l'activité politique ne mmh. doit mm. pas se tourner autour de l'élection présidentielle où tout le monde veut être président de la République mmh. mais l'activité politique mais xanaa kon yow doit tourner d'abord dans nos communautés maintenant président Sall nekk na maire bu Fatick. doo ko nekk président. mais loolu loolu mooy yow tey jii boo nekkoon maire bu Ngexoox après munoo. lu ëpp solo réew mi lu ëpp solo mooy politique bu may def. waaw Ngexoox lay commencé. wala yow da nga ragal wax ni dama am ambition présidentielle. du question de ambition. ambition booy am du pour personnel ambition bu ñu am xam nga mooy lan. Mhm. defar suñu dëkk. Ngexoox moom incha allah suñu ko joxee nañ defar ba ñëpp kontaan. réew mi nag. réew mi Ngexoox si réew mi la bokk. réew mi nag suñ la ko joxee. ah réew mi suñu ko joxee mën nañ liggéey lu ëpp ñu fi nekk. lu ñu liggéey wala pareego non du parce que du ambition. Mhm. nekkul loo xamante ne da jóg rek ne ambition parce que loolu moo si dëkk bi te ñun dugguñu si boobu. une minute Guy Marius Sagna lu mu la inspiré l'activiste. jàmbaar la. Mhm. loolu noonu mooy wane détermination mën na lu ne parce que kenn la woon di jóg di dem ànd ak deux trois boy di xeex ñu koy tëj ba nit ñu jam ne lu muy xeex du pour moom jàmbaar la donc loolu noonu rek exemple la pour ñëpp ngis ne sooy xeex ak loo say moyen néew ak loo mënul nekk ci rek le résultat n'est pas le plus important am na tey su jugoon ne dama bëgg nekk maire fii wala yooyu gars yi mun nañ ne bon amul moyen wala amul yooyu mais il a son combat donc chacun choisit son combat son combat mooy ñu am problème mu nekk di ko xeex ak ñoom dem ci manifestation yi ñu koy jàpp mais ñun tamit tànn nañ suñu combat au niveau de Ngexoox donc ku nekk na nga essayé rek tànn benn combat ak lu mu tuuti tuuti nga nekk ci mais bañ a jël combat bu ngand boo xamante ne mënoo ci dara ne dama bëgg nekk président changé ko te réglé woo benn problème bu bu concret ok kon ñu ngi lay souhaiter bonne chance pour la mairie de Nguékokh ñu bàyyi la nga tàggatoog auditeurs yi euh, Ahmed Diallo waaw ñu ngi lay remercier bu baax Ndeye Comba si émission bu am solo bi di remercier auditeurs yi di leen sant di leen gërëm di naan yàlla borom bi mu taxaw Sénégal taxaw mm. Sénégalais yëpp. Mm. ba ñëpp nekk ci jàmm ak salaam. ba bokkoo ci tubaab yi ñuul yi de kon duñ la jox mairie bu Ngexoox. non ñun moom waa Ngexoox xam nga yow <laughs> parce que professeur bee tubaab bu ñuul la. Eh, non Ahmed Ahmed Diallo Ngexoox. ñun ñu ngi ñun ñu ngi ñu ngi d'accord ñu ngi koy remercier bu baax a baax Ahmed Diallo euh, euh, leader bu mouvement politico-citoyen xoox bu bees nekk tamit euh, secrétaire général de fédération des organisations républicaines sénégalaises ñu koy remercier bu baax a baax ci disponibilité am di remercier ki nga àndal c'est un honneur parce que professeur. Euh, SPN docteur Pape euh, Alkali Mohamed Ben Diouf Uh, sama professeur la woon moo ma jàngal entre uh, 2008 et 2011 tey mu lay coacher politiquement donc c'est un honneur ma koy remercier bu baax a baax di remercier samay auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 à 11 ci seen émission sociale toute la ville en parle émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu site internet euh, comme wala ci suñu chaîne uh, YouTube euh, Rewmi officiel ba samedi prochain incha allah ci beneen émission euh, beneen thème ak beneen invité di remercier Mamadou Diawa Diallo bi nekkoon ci côté technique.